ay ca mbokk yi combat baa ngi noonu ci digg géew bi Siteu bu anti ak ki nga xam ne mooy Ama bu Yaraax Siteu bu anti moo ñu wan ginnaaw ñu jàkkaarloo ki nga xamante ni moom mooy Ama bu Yaraax arbitre baa ngi wax ak ñaar xale yi mu ngi wax ak ñoom ñaar yeneen wax li làmb nango ak li làmb bañ Siteu bu anti am na lu mu yor ci euh, loxo yi arbitre nee na ko pareel mu gaaw teg na sengoor gi ci suuf sita bu anti moo ñëwoon Ama bu yaraax a ngi nonu mom mo nge mo nge mu lu xonkoli mom Ama sita bu anti moo ñëwoon ya ya mo nge mu lu verre ni nonu tent bopp ba tak ben ab sengoor ja sita bu Andi ak Ama bu yaraax arbi di wax ak ñom di leen wax li nga xamanteni mi lamb làmb ak li lamb ba ñom ñaar lañ na zizi ba xam wax naag nee na Siteu bu anti pare nga Ama bu Yaraax pare nga arbitre sifflé na Ama bu Yaraax Siteu bu anti ñaari xale yaa ngi noonu Siteu ak Ama Ama bu Yaraax mu ngi noonu takk morso ba ja booba daa mel ni Siteu bu anti nag moo ko xaw a féetee ndax luur gi doole la wala déet kenn ko ne ya nga tak am morso bu verte ci sa digg am ay ci Siteu ngi noonu ak Ama Ama bu yaraax moo ngemb moo ngemb lu weex li noonu takk sengoor gu xonku gi sita bu andi ngemb moo ngemb lu weex li tak lu verte ci kaw momit setet Ama nga def ay déplacement diko wër da koy wër ndax sita ko xawa sa ci doole tuti moom Ama bu Yaraax eh Ama door na benn coup Ama dooran na ko ñoom ñaar ñu ngay xeex ñu ngay xeex Ama bu Yaraax ak Siteu bu anti Ama jàpp na <laughs> eh Ama da ko doon bëgg mu bañ Siteu ndengeñ na ko Ama da ko bëgg mbot Siteu ak Ama la ilaha illallah xale yaa ngay bëre Ama may na ko wet waaye wet gi baaxul Ama May bet wóorul Ama Sita, Sita bu anti Sita bu na ko col ñoom ñaar ilaha illallah xale yaa ngi bëre de xale yaa ngay Sita Siteu ak Ama Sita nengeñ na ko nag fare na ko suuf Ama ndax li nga may eppul. Ama ndax li nga may sita eppul, Ama Sita da ko don bëgg kalmu bañ Sita day force action Ama da kay mbot wala lan Sitang tegal 16 la ilaha illallah lii lan la ah ànd nañ daanu ñoom anu ñaar ñu xool li arbitre wax la ilaha illallah arbitre bi nee na andi daan Ama bu Yaraax arbitre andi Ama bu mais ndax amul di yoon wala déet ma ne ñaari yi ndax amul yoon wala déet xanaa kon ndox amul yoon ñaara xalé yi bari nañ bari bu neex ñaara xalé yi bari nañ bari bu neex Siteu bu anti ak Ama bu yaraax ye Ama bu yaraax wa Ama ngay ndokale supporter ya Ama mom dafa melni nanguna de Ama bu yaraax dafa melni mom nanguna ne Siteu daan nako Ama bu yaraax nanguna ne Siteu bu anti daan nako mo ngi non mom Siteu mu nga ànd ak coach baa moom laa ilaha illallah ama tëdd na ca suuf ama bu yaraax tëdd na ca suuf bu yaraax tëdd na ca waaye ama lii espoir la ama lii espoir la oh ama ama lii espoir la ndeysaan Ama dulu, waaye demir de Mungkin mu nyomnyar, wax ak lamu ñaar yeneen lamu li làmb nango ak li bu Andre amno na lu mu yor nak loxo yi ar wi nee sita bu anti ma ñëwoon ginnaaw Ama bu yara xangi nonu mom mo nge mo nge mu lu mom Ama sita bu anti moo ñëwoon ginnaaw ya mo nge mu lu vert ni nonu tente pop ba tak ben ab secor ja ba bu anti ak Ama bu yara arbi di wax ak ñom da leen wax li nga xamanteni mi lamb làmb ak li lamb bañ ñom ñaar laaj na zizi ba xam wax naag nee na Siteu bu anti pare nga Ama bu Yaraax pare nga arbitre sifflé na Ama bu Yaraax Siteu bu anti ñaari xale yaa ngi noonu Siteu ak Ama Ama bu Yaraax ngi noonu takk morso ba ca bopp ba daa mel ni Siteu bu anti nag moo ko xaw a féetee luur tuuti waaye ndax luur gi doole la wala déet kenn ko ne yaa ngi takk am bu verte ci sa digg ngemb ay ci Siteu ngi ak Ama Ama bu yaraax mo ngemb mo ngemb lu weex li noonu takk sengoor ko xonku gi Siteu bu andi ngemb mo ngemb lu weex li tak lu verte ci kaw momit setet Ama nga def ay déplacement diko wër da koy wër ndax Siteu ko xawa sa ci dole tuti moom Ama bu Yaraax eh Ama door na benn Ama door an na ko ñaar ñu ngay xeex ñu ngay xeex Ama bu Yaraax ak Siteu bu anti Ama jàpp na <laughs> eh Ama da ko doon bëgg a songale bañ Siteu ndengeñ na ko Siteu ndengeñ Ama da ko bëgg a mboot ak Ama la ilaha illallah xale yaa ngay bëre Ama may na wet waaye wet gi baaxul Ama maye bet ama Sita, Sita bu anti Sita bu nako jol ñom ñar la ilaha illallah xale yaangi ngi bëre de xale yaa ngay bëre Siteu ak ama sita ne na ko nak legi faré nako suuf ama ndax li nga may eppul ama ndax li nga may Sita eppul ama sita da ko don bëgg kalmu bañ sita day force action ama da kay mbot wala lan Sitanko tegal 16 la ilaha illallah li lan la ni ah anu lañ daanu ñoom ñaar ñu xoor li arbitre bi wax la ilaha illallah arbitre bi neena Siteu bu andi daan na Ama bu Yaraax arbitre bi neena bu andi daan Ama bu Yaraax mais ndax amul di wala déet mana nyar xale bar ndax VAR wala déet mana kondok ndox ah, bar amu ci ñaara xale yi bëri nañ bëri bu neex ñaara xale yi nañ bu neex agama bu anti ak Ama bu yaraax yee Ama bu yaraax waa Ama ngay supporter ya Ama mum dafa meni ni de Ama bu yaraax dafa meni mum moom nangu na ne ko Ama bu yaraax nangu na ne bu anti dana na ko mu ngi noonu moom nga ànd ak coach baa ngay wax moom laa ilaha illallah ama tëdd na ca suuf ama bu yaraax tëdd na ca suuf ama ca suuf waaye ama lii espoir la ama lii espoir la oh ama ama lii espoir la ndeysaan Ama tëdd na waaye demir de woo